Public SN TV bienvenue nuyu nañu leen téléspectateur internaute lecteur ak ñépp ñi nga xamante ne safoon nañu programme yi ñuy dugal te seetlu nañu ni ngeen ñi toppee depuis le début ba mu agsi fii tey samedi encore ñu dalalaat Cheikh Ahmed Tidiane Cissé yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté fii ci réew mi kenn dootul tamit wax ay qualitéem ci wàllum waxtaan décortiquer actualité politique culture fait divers ak lépp lu mënti doon Cheikh bi nuyu nañu maa ngi lay fay di am kontante teewaat fii teew fi dafa am lu ñuy firndeel bokk na ci biñ fi teewee semaine passée doon ñaan yàlla. fekkee semaine prochaine yàlla def na loolu loolu nag sant yàlla la ndax ndaxte am na yonent bu ñuy wax Moussa dafa ñaan yàlla yàlla yónnil ko Jibril na ko nangu naa ñaan gi waaye fa Jibril ñëwee ak fi muy tegee batam ca lam ñaanoon 40 ans la ñun nag semaine passée rek lañuy ñaanoon fekkee ko semaine bii ñëw ñu gis ko te mënuñoo gën yonent yàlla Moussa ça veut dire que yàlla jox nañu bernde ak jagle ñu koy sant ci loolu di nuyu ñi nga xam ne dañu tàmm Public SN ngir di fi taataan xibaar te di fi xerew loolu li xew ci dëkk bi lépp loo xam ne ni jëm na ci culture aada ak cosaan di la nuyu Vito présentateur bu mag bile xam nga kum neex téye micro kum neex bind sa laaj waaye di ko laaj nag ci xam-xam bu tegu loolu may la mm-hmm. yal na yàlla defal la jàmm wute nga ak présentateur yu ndaw yi nga xam ne ayuñ yow da nga ay da nga mën maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñu lay seetaan. Euh, fay naa la cheikh bi semaine bi euh, noo ko dundee lan nga dundu ak euh, actualité bi lan moo la ci peut-être gën a marqué. semaine bi li ma ci dundu la ma daan dund rek mooy yàlla waaye ci actualité dafa am benn sortie bu ma defoon di wax ne dama nopp Aïda jàlloo ñu bari am nuñ ko gisee am ay taalibeem yu may woo guddi suba bëccëg ngoon mais li ma gën a yéem hmm. mooy suñ ma woowee yar gu ñuy àndal ak dal gi euh, nitte gi loolu daf ma yéem parce que am xam-xam taxul nga yaru hmm. mën nga yaru te doo nite mën nga mën nga nite ba pare doo am dal Mhm. mais ñoom qualité yooyu yëpp lañu ñu boole qualité yi nag ñu boole daf may may ma dawal suma sixième sens ne su fekkee ne ñi ñuy yaakaar na ñooy sëriñ ci ay qualité soo waxee lu waxut seeni taalibe li ñuy def mooy ay menaces ay saaga ay xaste euh, ki nga xam ne ñu ne moom nekkul sëriñ euh, ki nga xam ne du góor jigéen la mun a yar mbooloo moo xam ne bu ñu amee lu leen naqari dañuy am dal dañuy nekk nit loolu lu ma marqué la. Mhm. man nag may koo xam ne bu fekkoon ne dañu ñëw ci man ci ay xëtt xëtt du ma leen faale parce que li ma def du crime ma du sëriñ ma amul cër loolu leneen la du suma affaire. Mhm. mais jigéen la góor la te xaraamut ma. yaa ngi dégg. Mhm. te caricaturé wu ma ko ka dafa bon. dama ko nopp jeex na fii ku fi sa ndey de ku fi sa baay de ñu doon sa amul amul werante dafa yoo xam ne foog nit di ko nangu te benn jëmm yow danga nga ciy gis ne kii président de la république la mais kii da ciy gis ne jëkkëram la kii de gis ne baayam la donc ki nga xam ne taalibe la ci moom li ko yàlla wan ci moom ba mu gëm ko moo ko xam man dugguma ci loolu mooy pas-pasu nit non non non kenn amul droit xool benn nit bu fukki nit jiite nga ne matul njiit kooku defuma loolu waxuma loolu. Mm-hmm. mais nag lu ñu màgg màgg màgg màgg yonent bi dafa amoon ay soxna bi mu génnee àddina doon nañu ay soxnaam saxaaba yi amoon ay soxna bi ñu génnee àddina dañu doon seen soxna am na ay saxaaba yu jigéen yoo xam ne bi seen jëkkër gaañoo dañ leen doon euh, takkaat leen ñu sëy donc dafa yoo xam ne du crime mais nag lum ñàkk ñàkk nekk crime xëj na orma biñ jox Aïda Diallo xam nga waxuma soxna Aïda ba tey. Mm-hmm. Aïda Diallo laa wax euh, ndax ñoom ñoo gis. lu tax ñu ne soxna man Aïda Diallo lay wax léegi orma biñ ko jox tax na biñ déggee waxi mu blessé leen mais dañu ànd ak dal dañu ànd ak nite dañu ànd ak sago wax dëgg yàlla loolu marke na ma neex na ma ba tax na duma ma taalibe Aïda man duma duma du ma du ma murit tiijaan laa jullit laa waaye bëgg naa ko fonk naa mbooloom mi te dina xaritoo ak ñoom ci jàmm bu ñu xewlee ma dem su ma xewlee woo leen ndax biir lislaam bi dafa rafet a jàmm rek a ci xaj loolu moom lu ma marqué la. Mhm. parce que maa ngi fàttale ko bien avant moom dama daan am suma position mais taalibe yi nga xam ne sëriñ maanaam su ma amaan position bu wutee ci sëriñ ñoom dañuy ñëw di saaga di wax wax bu ñaaw bu ne dama leen daan tontu ne yaruñ leen buñ leen yaroon nit wax lu ngeen ñàkk d'accord da ngeen koy argumenté ci xam-xam. mais ci yar ak daal su dee man da ngeen jàpp ne dama xamadi ba wax lu ñaaw. Hmm. yéen ngeen wax lu gën a ñaaw kon ñun ñaar ñëpp a xamadi <laughs> yéen kan seen sëriñ amalu leen njëriñ mais ci kaaw soxna Aida ah gisuma ku ma defal vidéo de waxuma amul mais gisuma ko mais ñi may woo téléphone laa wax ci suma téléphone dañuy waxtaan ak man comme nit ak nit te loolu marqué na ma franchement dafay wane ne Sénégal ba tey am na ñu mën a yar am na ñu mën a contrôler seen mbooloo te am na mbooloo moo xam ne baax neen waaye nag nit ñi dinañ leen réeree ba ba ñaawal leen mais lenn aussi dérangé na ma yàgg naa wax lu baax ci ayda Diallo te kenn ci ñoom musta génnee àddiya jox ma kenn ñoom musta ki téléphone na ma li nga wax rëy na su fekkee ne nit day wax lu baax ci sa kilifa te doo ko wax jaarama bu ci waxee lu la neexul da ngay toog muñ waaw loolu daal marqué na ma ci bu ci waxee lu la neexul da ngay toog mun yaakaar naa ne peut-être euh, loolu duñ ci appesantir bu baax sax waaye juste li may laajte mooy yow li ngay wax nii Euh, bi la gaay woowee nga ko soog a suuraale wala euh, bi ngay wax toog di jàkkaarloo ak soxna si di ko wax yenn kàddu yi nii est-ce que suuraale woon nga ñi nga nekk di suuraale actuellement. non non ñooñ seen yoon mosu ci nekk. waaw seen yu parce que seen njabootu diw ba nga ne diw bu am fukki mbooloo di leen diriger. Uh-huh. suuraale woo mbooloo boobu bay teg yenn kàddu yi ci kawam est-ce que bu dee jëmm ji sax parce que wax nga ba ne du ma wax soxna Aida Aida Diallo laay wax man. Uh-huh. kon est-ce que sóoraale nga mbooloo moom bi ngay def say déclaration boo ko boo leen sóoraale woon yaakaar naa ne mooy gën a yomb ci yow. non xam nga ba tey ci biir mbir mi sóoraale wu ma leen parce waxuma ak ñoom su fekkoon ne dama ne du sëriñ wala matut njiit su boobaa concerné na mbooloo ndax ñoom bëgguñ ko en tant que jigéen la wala góor den ko bëgg ngir moo leen doy ci yàlla. ñenn ñi den ko bëgg parce que sëriñ diw moo leen boole ak moom seen seen raison la quand même. Mm-hmm. respecté naa loolu laaluma boor boobu Mhm. mais nag nit ki ak jëmmam dafa amaat beneen personnage bu nekk ci kaw bu concerné ñeneen buñ ci amee lu leen naqari ñu wan ma yar ak dal wan ma nite loolu dafa may marqué. Mhm. daf may dugg-dugg boo xam ne tey damay bëgg euh, franchement ma rafetlu loolu. parce que tey bu fekkoon ne ñoom dafa am nuñ ñëwee ci man non yow tamit konoon dafay gën a métti de parce que li ma wax du kirim amul benn ci constitution Sénégal bu la ci mën a tëj. saagawuma xastewuma waxuma lu ñaaw. mais est que doo leen baalu àq rek mu gën a yomb ci. non tooñu ma leen franchement tooñu ma leen mais rafetlu naa acte bi ñu defee suñ gëmee ne den ma tooñ rek ça va mais man hmm. tooñu ma leen de. Hmm. waaw su fekkoon ne dama critiquer seen sëriñ su boobaa nag amut lay amut làmmiñ bu neex amut gudd yaa tooñ mais la ko fal ak lam toog suma yoon nekku ci ndax jullit da ngay màndu ci nit c'est ça. Hmm. loolu leer na à nit ki laa ne dama ko bëgg soxna te loolu dagan na ma mais nag ginnaaw boo ko waxee mu naxari ay gor ay jullit ay nit ñu baax ay kilifa ba pare ci biir naxar bi saagawuñ la xasuñ la menacé wuñ la mais den la woo ci yar ak dal mais nit nga rek daf lay impressionné su beneen yoone di nga xam nooy waxee. Hmm. mais man gëw ma li Sénégal gëm toog wax lu la neex génnaat ne maa ngi jéggalu non non non. Hmm. man musuma wax lu ma neex lépp lu may wax dama koy teg place gëm ko mais nag wax lu mu daju daju mën nga ñàkk a wuuteeg nit ñi xaw ma ne yaa ngi comprendre. Mhm. léegi boo wuuteeg nit ñi da ngay respecter différence yi ba pare defaraat communication bi beneen yoon. defaraat communication bi. beneen yoon yoon. Mm, semaine bi tamit duñ ci génn te waxuñ sa diggante peut-être ak Kaliphone euh, ndax li ñuy wax actualité yow moom dafa mel ni actualité Sénégal semaine bu ñuy def faaw nga fexe ba ñambaas yi benn mbir moo xamante yow yaa ko moom bu ñu limee ñeneen ñi limaale la je pas exprès la. wala wala peut-être xaw ma li nga li nga waxoon ne moom ngay <laughs> moom ngay sangoo mais kalifon sa digganteeg moom lan la exactement dafa yàqu nag fu mu toll nii. non non doo ko nangu nag. waaw man duma bañ dëgg. réew mi yëpp parce que xam nga la moo gën a métti di wax réew mi yëpp jàkkaarloog yow xam ne peut-être xam lépp ba pare nga toog di wax juste pour rafetal wala affaire yooyu noonu comme ni nga ko defee nekk di defee fan yii yëpp. non pas rafetal xam nga. man du ma nangu uh, ki téye caméra di ma laaj ci suma xarit téye xaritam ba pare bëgguma waxal ko suma xarit benn du ma ko nangu ñaareel ba suma diggante ak Kali ñaawul ñaawul parce que xoolal ci internet bi. Mm -hmm. damay génn rek nit saaga suma ndey te mu ngi yomal xiyam ma génn nit saaga suma baay te xamuma ma génn nit xas ma tuumal ma te xamuma ma mën koo muñ waa lan moo tax xarit bi nga xam ne séq nañu mbaax benn yoon séq ko ñaar yoon séq ko ñetti yoon su waxee loo xam ne man dama jàpp ne dafa juum waru ko duma ko jéggal gisuma raison bi. mais bu la jéggaluwee. non même bu ma jéggalul parce que ki ma saaga jéggalul day dugg suma live rek dagg saaga génnaat dem. mais da ngay fayu de. ñi lay ñi lay saag ñi la yëpp da ngay bu fekkee ne amoo foo compte nga saaga ma ma jàkkaarloo nga saaga ma ma delloo la ko fa mu gën a ñaawee. Mhm. mais li may bañ mooy su ma munee muñal ki ma xamul xamuma defaluma dara saaga ma ndey xas ma tuumaal ma wax dëgg yàlla war naa muñal kali mi nga xam ne guddi neen bëccëg neen te benn jotaay la toog wax xalaatam te wax ji sax ñaawul. lu mu wax waxul xalaatam li am la wax. waaw d'accord mu wax li am. Hmm. sa xarit bu waxee dëgg kay da nga koy rafetlu dëgg yàqul xarit. Hmm. donc tey nga gi mën a gis li mu wax dara ayu si. daf ne bu ma Pape Diouf di wee moo may jox. Hmm. mais Sénégal milliardaire sa buñ koy wee ñu jox la nga joxe benn bi dama doon tukki mu dolli ma paas. Mhm. mais ku am sa mbokk muy tukki di ko jox yóbbal. Mhm. Hmm? dang daan yëpp sa bagage ba pare kii indi saafara kii indi téere jox la suma xarit la mu yëkkati vingt mille jox ñu. Mhm. mais loolu dafa neex. ak lan lu extraordinaire. moom daf ne boole na ma kilifa mu jox ma cinq cent mille déedéet nit sooy wax doo desal. Marème Faye Sall moo ko jox téeméeri junne pour mu jox ma ko. waa daf ci daf waroon a tudd. waaw wax doo ko desal. li mu wax dëgg la mais man ak moom la ootewu ma laajtewu ma moo ma ne Marème fay Sall dafa soxla sa numéro ngir wéef la yónnee la xaalis ma jox ko suma numéro ñu yónnee ma 500000 ma sant gërëm surtout dafa waroon a yegg ci kan moo ko jox. Hmm. mais soo mënee toog ci tele ne jox neen ma 500000 mais nga war a am honnêteté nag ne diwa ko ko jox. xam nga hmm. loolu aayut ba tey kali waxul lu aay daal. Hmm. waaw daf dafa waroon di yegg ci tur rek. parce que wax moom duñ ko desal. mais Kali li mu ne moom moom la la jàppal mooy bi mu nekkee ci euh, kaso bi bu wootee waa seen waa kër yow la ciy teg laaj la naka nga def yooyu noonu mbir yooyu waaye dafa jékki-jékki benn fan di xool gis na yow yaa ngi ci xuloog Pawlish di ambiance di live TikTok di def ay yëf. moom mu ne moom naxar ba mu doon déggee ba mu doon dund yow yëguloo ko parce que moom ma nga euh, biir kaso te yow yaa ngi wër ci dëkk bi di nekk ci fait divers di xeex ak ay Pawlish di xuloo ay Pawlish ci ay plateau moom foofu la jaar moom xam ne moom nekkoon nitam. non c'est parce que daf ma bëgg rek xam nga loolu yëpp mbëggeel la. le fait que mu ngi kaso mhm. mu gis na maa ngi bëggee pour moom ni mu ma bëggee dama waroon dama ko waroon a gën a triste et c'est vrai xëy na maa ma tëddi rek mais li mu wax man amul rek laa ci gis ah, parce que am na ñu doon tëggi soo lijjantiwut leen. Mm-hmm. am na ñu doon bëree pour pourquoi mu lijjanti Cheikh Ahmed parce que dafa bëgg Cheikh Ahmed. Mm-hmm. man noonu laa ko gisee. bokk na ci leneen tamit euh, nee na ba ngeen toogee ci kanamu commissaire da nga ko jéema a buruxal ah, parce que dafa ne euh, ba mu ne Cheikh Ahmed mii dóor na da nga ne ko bul tuddati sama dóor te fekk na yow yaa ne dóor nga kali ne Cheikh Ahmed dóor na yaayam dóor na nga ne ko bul tudd samay dóor. non non non xam nga loolu soo ko seetloo tam lu honnête la rek. maanaam moom def na ma ne ko tuddal sa bos man ma tudd suma bos parce que dëgg yàqul xarit quand one one honnête honnêteté la rek because man moom ni mu tëddee laa koy waxee man xàmmiwuma golo gu poudre bu poudre donc moom def na man def na ku ne na wax sa bos ñu bind ko ci PV bi surtout loolu la rek foofu tam réeroo amu fa. nga ne ko <laughs> bu mu tudd sa bos. waaw na tudd bosam ma tudd suma bos parce que ku ne dafa am responsabilité quand man den ma mm-hmm. tegal kayit pour suma PV. Mm-hmm. ñu tegal ko kayit pour PVM. Mm-hmm. mais moom na wax boo xam ne ma wax suma. loolu rek laa ko doon expliqué sa vrai boobu moom dëgg la. bu mm. ko waxee la ame <laughs> kon léegi yow kali boobu léegi. non dara yokkuwul suñ diggante waaye dara wàññeekuwul. Mm. mais ba mu génnee ba léegi leen wala gisante ngeen. non non moom dem na Fuuta gisoo. kon dara wàññeeku na. non non gisoo ko mu dem Fuuta. ki nga xamante ne euh, bu bu bu bu wootoon seen waa kër bi muy nekk biir kaso bu woowee seen waa kër yow la ciy teg. mu génn def une semaine ci dëkk bi gisantewu leen. nga ne dara yokkul dara wàññeeku. non mën na nekk un mois parce que xaritoo bu dee dëgg la gisee yokkut ko ñàkk a gisee wàññiwu ko bu dee dëgg la xaw ma nag xaritoo naa fex mais bu dee da ngeen bëggante. <laughs> noo gisee ñàkk gisee wàññiwu ko yokku. neex nga nag neex non c'est vrai dem na Fuuta gis nga ko. mu ngi si ay vibe sam. Mm-hmm. bul fàtte ne euh, kaso la mm-hmm. dañu am aada am na lu mu gëm. foog mu mm-hmm. defaraat boppam defar tax dëkk bi boo. boo sàgganee rek ñu firir la lekk la hmm. waaw foog nga lëndëm. bokk na ci it euh, actualité sorti peut-être kii di Waly Ballago Seck mi wax ne moom musique Sénégal fi mu ko yóbbu peut-être amul ku ko fa yóbbu ci jamono yi euh, te bu ñuy bu nit jógee bitim réew ñëw laajte kan mooy numéro un fii Sénégal moom la ñuy duut baaraam ne moom mooy numéro un Waly Seck déclaration boobu. non xam nga tey mën nga jaaxaan di saw sa bopp du problème hmm. su boobaa saw nga waaye sa bopp nga saw rek xam nga Waly su toogee ne mooy numéro un. Mhm. en terme de showbiz. Mhm. dama ko koy nangul. parce que normalement boo nekkee ci musique waroo mën a yembar ba gëm ne kenn ay un Ouzin Keita sax boo ko laajoon da naan mooy numéro un. Mhm. mais nag waxi showbiz ak waxi dëgg du benn. comprendre kuñ dimbale dina yeb ku ko mën Wally sekk den koo dimbali waaye ñu ko mën a nekk ci aar bi. dafa juddu fekk tey euh, Barcelone bu 2009 ba 2011 taxaw. xam nga ne Pinto jël na Ligue de champions ay yoon mhm. <laughs> benn match la joué final Copa del mhm. Rey. Chris ray ko benn mbëkk. Mhm. mais nekkoon na ci équipe bu daan jël coupe. xam nga ne West Brown lu mu gagné Stephen Gerrard gagné wu ko. te West Brown jël na Ligue des champions jël na ñetti coupe parce que Manchester la nekkoon. Wally dafa judd fekk raam daan. mu pare man mii ba ma yóbboon raam daan tey damay toj. comprendre li may wax ni nag jotewut dara ak mënta wéy. non ku ne Wally mënta we da nga iñaan mais foog nga déglu li may wax. Mhm. dafa juddu fekk baan bu pare. loolu bu ko bu ko Ndiogo mbay amoon wéy ba génn télé. baan mooy groupe mooy groupe. Mhm. Sidi Diop mi nga xam ne yuuxu rek mel ni pot bu yàqu. su ko amoon tey dafay rey dafay rey àdduna donc Wally den koo dimbalee sëriñ bi mu ne kuñ dimbale dina yab ku ko mën. Mhm. donc su waxee loolu waxi ne soo biis la. mais Wally boo ko fekkoon muy neloo nga yee ko sëlma ko sang ba mu set nga teg ko na ko kuy numéro mu ne la suma papa Youssou Ndour kuy deuxième mu ne la suma suma tonton Pape Diouf loolu dafa leer dafay wax nii rek mais xam na ne loolu du dëgg. Hmm. mais nag waxi soo biis la kooku du problème. mais Wally nga fay caméra yëpp na ko kuy numéro un mu ne la papa Youssou. le king et mbalax bu Sénégal. Hmm. dana naan papa Youssou. Hmm. nga ne ko ku ci dàq wëy mu ne la Pape juuf boo ko laajee jigéen ñi titi la lay wax. mais moom mooy mooy mooy buuru génération bi su si xale yi euh, ay ñoom si di ñëw waale da leen di lekk du seen morom mais su duggee ci mag ñi day day xaar bande du du nekk titulaire. Hmm. waaw waxi fans nag bu la neexee nga ne waale dàq wi sa Michael Jackson sa affaire la mais musique dafa am ay norme dafa am yoon. waaw hmm. ah, melomaan yi xam nañ ko. waale dese na lu bëri. waale dafa juum. no juumul da doon soo showbiz rek et c'est normal loolooy showbiz. gisoo mbëri man maay roi des arènes maay nangam c'est ça showbiz la. mais boo duggee Sénégal laajte ku dàq way bul ko laaj kenn demal ba ci soxna ay dara ak waali nga laaj leen ku dàq way ñu ne la Youssou Ndour hmm. ku ci tegu ñu ne la Pape Diouf day wax rek. Hmm. mais bu ñuy wax musique Sénégal euh, musique sénégalaise parce que moom laajte na ko keroog benn journaliste ne ko fii ak dix ans ci ginnaaw ak léegi bu ñu doon xool musique sénégalaise dafa dellu ginnaaw wala dafa avancé. yow peut-être je sais pas ndax bëgg nga musique bëgg nga musique ndax li li la Pape Diouf di woy gis nañu nga def ko hymne national. Hmm. waaye boo doon xool jamono ju njëkk ja ak léegi musique sénégalaise dafa avancé wala dafa dellu ginnaaw. non dafa dellu ginnaaw franchement musique bi moom neexatul dara parce que gars yi au lieu que ñu concentré ci liggéey bi dañuy concentré ci lu ñuy tiktok ak lu ñuy bës. Mhm. da ngay gis tiktok musique di toj nga dem déglu sound bi doo ci xam dara. du wax dara musique bi mokkatul ku nekk bëgg naa ber daaraam Mhm. su ngeen beree créer buzz ci musique la ñuy gën a def ko créer mélodie buy bégal nit. daan wëy wëy léegi amut ndeysaan. Mhm. amut wiccaxu mhm. waa cump cump pour pour pour rek. ay wàccal wàccal ci suuf soo wàccee suuf foo jëm dañuy yéeg ci kaw kay neexut daal musique yi daal. te te aussi côté prix aussi peut-être am na ñi nga xamante ne ñu ngi gagné ay prix kenn du ko miim. si ci musique Sénégal créer buzz euh, la gis nga man mii tey. bu ma simmeoon suma mbaxana bii dem ci Papis Konaté mu tëggal ma ay son rek ñu créer buzz rek ma dem suma yoon mais créer buzz ak musique du benn gis nga musique mën na jaar yoon. Mhm. Hmm? cent mille sénégalais du ñu déglu son bi mais terewul lu jaar yoon la. Mhm. mu ngi mel ni kiy wax xam-xam dëgg ak yow wax ju rëy du benn. senegal booy wax xam-xam pire amuloo pédagogie boo leen ko joxee du ñu la faale dañ lay ci dañuy tayal. Mhm. mais mën nga ko def fee di weer def ko ay guro mots yu ponkal ñu di la déglu ba pare di déglu dégluwaale sagesse bi nga làq ci biir musique sénégalaise fa la toll. Mhm. mais du benn bés bu Youssou Ndour génnee da nga xam ne xale yi dañuy fo. Mhm. mag mu am ni Youssou Ndour bu téye baan bi kenn du kaf duree. Mhm. waaye ñii dañuy tëgg guitare sax naan xale bu jigéen bi nii. xam nga di manière di la wan ne maa ngi lay gis bu ñu paree au lieu ñu xam lan mooy seen erreur jëlante numéro ak fatak nàmp la ñuy def mënta dem. ñoom ñu si bëri ay sobe leen am. mais est-ce ku ci yëkkati poxataanam nga daw. Hmm. ñu mm. bëri dañu xesaw bëgg xeesal manière musique amatul benn cër. moo tax gars naan musique dafa xaram rek mais mélodie bu jaar yoon aji jabu sekk la Célusien. Mm bu toogaat ba ferenkulaay ba koy gitaaral ku ne dafa xaram ñu dagg sa gat mais léegi nag moom lii dafa xaram tëbal ak wàccal ci suufa daal da nga daal. boo ci découragé bu Pape Diouf amutoon du ma déglu musique de. Hmm. non non mais ah yow yow daa mel ni waa ji moom nangu na ne waa lay numéro un moom. waajan si. Pape Diouf bi nga wax. non Pape <laughs> yow tamit. Hmm. Pape Diouf moo moo def waali nii. waali Pape Diouf la daan ñëw di di di si di fan sa Pape Diouf la. Hmm. mais bu ñuy wax tamit musique sénégalaise côté prix parce que bu ñu doon wax euh, Baaba Maal lim disque d'or Eh, Youssou Ndour lim disque door Ismaïla Lo Ismaïla Lo lim disque door jamono jooju ku ñu lim ci ñoom Cheikh Lo peut-être. Kumba Gawlo Seck Kumba Ga Kumba Gawlo Seck. Mhm. mais léegi ñoom xale yi ba ci Viviane mu démb mi sax ah. mais. Mhm. Eh, ñoom ñoom ñi nga xamante ne peut-être ñoo fi nekk jamono ji. pour am dina am sax ñenn ci ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi am ay prix mais kenn du leen peut-être du leen duñ leen médiatiser duñ leen war a médiatiser mais ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a fës euh, pour ñu am prix. au niveau international national sax pour ñu am prix lu jafe la kon yaakaar naa ne war na tamit ñu def taxaw seetlu ci loolu. non mooy li ma la wax sànq rek. Mhm. mooy dañuy créer buzz mais du ñu def musique xam nga tey Sénégal mën nga créer buzz nit ñi coow mais monde international boo fa demee bu musique bi jaarut yoon mélodie bi jaarut yoon amuñ ci soxla dañ koy sànni mais seen wëy yi amul ndeysaan. Mhm. amul ndeysaan copier coller rek. Mhm. kenn ku ci nekk bëgg nga am sa benn affaire sa kër di def son privé ay anniversaire ay nangam di am looy macaat mais jaaratut yoon tarbiyaatuñ ko. Mhm. foo nga ne moos bu Sidi Diop deme ba jiite baan banaan day wéyee ka live ak soo nga xam ne musique yàqu na ku xam ne ci awu nga toll ak fecc nga ne yow léegi njiit nga am ñu lay topp nag mu jaral leen saaga ak ko c'est du n'importe quoi. loolu du yoon. on vous rappelle que vous sur euh, Public SN ñuy dalal euh, Cheikh Ahmed Cissé Cheikh Ahmed nag li man li ma gën a ñor tey ci waxtaan wi ci lay soog a si nii lii nii yëpp dañ doon liifantu rek mais mënuñu wax euh, actualité fii ci semaine bi te génnewuñ ci Ousmane Sonko li tax nag ma peut-être ma mujjee ko mooy déclaration bi nga ci defoon ne dootuma wax ci Ousmane Sonko. mais man santuma la peut-être loolu nangul naa la ko santuma la nga wax ci Ousmane Sonko mais ci politique laa bëgg ñu waxtaanee Ousmane Sonko wooteem beeg wuy jibi bi bi mu njëkk a def ne kenn bu mu génn fekk si ko discours ba mu defaat uh, bi mu demee wuy ji juge ba ñëw toog nan ban jàngat nga ci am waxtaane wuñ Ousmane Sonko nag na leer ci ñëpp ñëpp ñiy seetaan waxtaane wuñ Ousmane Sonko non li ngay def ni gëmoo ko ay théorie la rek ay santuma la nga waxtaan ci na leer pour piéger ma ma dugg ci dama lay xamal lu gàtt. Mm-hmm. mooy ne. Mm-hmm. mbiram sonk aw ma ci wax aw ma ci defar. Mm-hmm. su ma nekku ci. mais politique laa bëgg nga waxtaanee. politique ak mbiru sonk du benn. politique gu Sénégal ni mu demee Macky Sall laa ko tii. non non ñëw ci. discours non politique nga ma wax. waaw mais soo ma yóbboo ci Sonko Sonko la aw wax ci mbiri Sonko. pour mu gàtt leer. soo ma ci laajee li may tontu mooy aw ma ci defar aw ma ci yàq fu mu toll nii gàttut leerut gàttut leerut. waa léegi kon ma gën ko leeral mooy xaw ma ci dara dégguma ko. Mhm. dégluwuma ko. Mhm. gisuma ko. Mhm. léegi leer na. leeragut de. lu des pour mu leer. pour nga décortiquer. mais lu ma gisut mënu ma ko décortiquer. waaw mais gisuma xooluma seetuma dégguma. waaw mais ñu waxtaan ci politique rek cheikh bi génn ci yi nga ne nii nag. d'accord mais politique moom laa la doon wax nga tourné waat ma ci. song waaw ci politique léegi. politique gu Sénégal actuellement Macky Sall laa ko Mm-hmm. damier bi moo ko téye ci loxoom lan moo tax mu téye ko mooy am na information ak source yu leer ne yeewi askan wi ku dul Ousmane Sonko réeroowoo ak Macky Sall mm. non non non ku dul Ousmane Sonko réeroowoo ak Macky. est yaa ngi mesurer li nga nekk di si bien sûr ku ci dul waxal Macky directement yaa ngi wax ak moom indirectement. ñi jiite yeewi askan wi laa la wax. Mhm. ku ci dul waxtaan ak Macky Sall directement yaa ngi wax ak moom indirectement. Hmm. kon kay yeewi askan wi àlalu Macky la. Hmm. kilifa diine yi ñëpp a ko gërëm amul kenn ku ko mere. société civile bi dañu xaaj. homme d'affaires yaa ngi waaf ku ko ci bañ ñi ma woo yëngatu. askan wi ñu ci bëri dañuy xaar ku leen manipuler boo génnoon rek ne nangam ne ñu gëm la amuñ fu ñu far ñoom xamuñ bër set <laughs> ngoon ak naaj bi tàng na. li ñuy créer ci ay électeurs yu war a woote 2024 kenn xamul nu mu toll ci ay xeet yu wuti rawatina halpulaar ci dëkk yu gën a sori ñëpp daas fanaana la pour président Macky Sall all right uh, bi mu bëgg a defal Khalifa Sall bu ko defee yeewi day tas mu jugee foofu Karim wàdd bu wàccee day jël alalu baayam lu waay moom lu waay am yaa ko moom waaye ku donn mu dëgër ndax ndono la may am na ñoo xam ne tey Karim la ñuy xaar bugg ñoo xam programme bu mu indi bugg ñoo xam ci lu muy dox Karim wàcc na rek ñoom waa des leen lu ñu sax ay ay ay ay kii libéral ñoom waa des leen wàdd lu wàdd joxoñ leen gis lu mu joxoñ leen gisuñ ko su loolu amee dafay gëna nasaxal doole Ousmane Sonko politiquement te su boobaa makki Sall mooy ëpp sens pour deuxième tour bu fekkee du gagné première tour bu demee deuxième tour koo xam ne moo la abali bët fu ko neex ngay xool carte gi day tas moo tax ma ne la politique gu Sénégal ci jamono ji makkee ko moom li gën a intelligence ci li mu def mooy Amadou Ba bi mu jël def ko premier ministre parce que li gën a jafe senegal mooy waxukaay média yi ak waxkat yi influenceurs yeeg géwél yeeg sëriñ su mën a wax seeg ñooñu mhm. beneen bi mooy ñi am doole ci nit ñi ñëpp Amadou Ba daf leen defal teraanga te sénégalais boo ko lebalee bëccëg guddi la lay fay ñoom jàpp nañ ne Amadou Ba juum sa ñu wax ko loolu trahison la donc amadu Ba dafa téye média Sénégal bi mu ñëwee ba léegi critique Macky Sall dafa wàññeeku ci ñëpp nag. Hmm. ndax dafa am teraanga bu mu dox ak ñoom bi mu nekkee impôt et domaine bi mu wàccee mu di leen teral média bu jug di sëkkatal amadu Ba comme ni ñu def ñeneen ñu doo ko gis ndax fi mu jaar ak ñoom soo Sénégal nag soo tiyee seen làmmiñ rek yaa leen moom ndax wax rek leen am sénégalais mën na di suba ba guddi di waxta du def. waa wax rek xam naa bu yàlla doon fay wax ñoo ëppale waaw waaye wa man xaala fu ñu ko wax rek wa man a amila saalihan leen ci teg waaw réew mu wax la moo tax wax du fi yàq dara da ngay gis ku wax lu taal réew Sénégal ñu ciip ko dem parce que dañu miin wax ay waxata ñoo ko dëkkee moo tax ku fi bëgg dund faaw nga mën a wax wala nga am ku lay waxal moo tax borom alaleeg homme d'affaires yëpp am neen média ngir réewum wax la. Mm-hmm. koo ci gis muy influenceur bu waxee gërëm diw ndax moo koy jox lu muy fayal yaas moo koy jëndal ngir mu waxal ko réewum wax dana bi ma ñëwee bëgg bokk suma ma laa licence ba pare teg ko ci tali. mais yow Cheikh bi yow nit ñi dañuy waxtaan ci est-ce que Macky Sall le président Macky am na droit def pour déposer sax une euh, troisième candidature yow ngay wax ci mbiru deuxième tour. non nit ñi waxuñ loolu de Barthélémy Dias mu ne moom yebut constitution bu Sénégal moom Barthélémy mu ne képp ku jóg ne Macky Sall amul droit à troisième mandat da nga yàpp constitution maire de Dakar ko kooku du caaxaan mboolem maire Sénégal mooy seen maire. moo wax li moo ma gën a jàng moom ci xaalisi politique leen ko ngénte parti bi njëkk Sénégal la bokk mooy politicien bi gën a jantal ëpp leen fit gën leen a bànn moom nante la. mu ne ko génn da ngay Macky Sall man kay moom laa gëm man Barthélemy dafa ma ne xam nga man fan la. mais Barthélemy bokk nga xamante ne ñoo gën a taxaw fu mu toll nii pour xeex troisième. non Barthélemy du def loolu parce que moom du fenkat. non Barthélemy du fenkat te bu te bu waxee loolu defaat ko kon fenkat la. Mhm. en tant que maire de Dakar chrétien bu baax bi mu doon amul droit fen. Mhm. wala war na kàddoom. Mhm. loolu moom nañu nañu ci ruus rek nañu ci Barthélemy ruus. te man gëm naa ko man dama bëgg Barthélemy dama ko gëm dégguma mu ne Macky Sall amul droit troisième mandat te gëm moom def ko ndax doomi gor la Barthélemy gaynde la. mais coowal politique politique gu Sénégal fu mu toll nii mënuñ ko lim tam te duñ ci génnee Adji Sarr. Adji Sarr euh, yan kàddu yow jot nga xam aji Sarr. xam naa ko kay dañ daan waxtaan téléphone. jot ngeen waxtaan. Mhm. ku la ko doon paas Kaliphone. xaw ma kan moom ma ko doon paas mais ñu ngi doon waxtaan mu am suma numéro. ma am numéro am ñuy wax loolu moom. parce que li moom démb bloqué na aji Sarr nee na dootul waxateeg Adji Sarr xaw ma yow nag. ndax am na ci dura. Mhm. moom moom téléphone ku ko Mm-hmm. bu ko nee sa na ma bloqué. no yow nga ne xaritam nga te dara. bu baax non dama lay won sañ-sañ bi mu am ci téléphone ba bu ko nee sa na bloqué doom ndeyam. Mm-hmm. mais politique Sénégal mënuñ ko wax te ñu ci génnee. Adji Sarr musul dugg ci politique Sénégal amu fa cër. Mm. non non lu ci yoonam. Mm. bokkul ci parti. Mm-hmm. est-ce que mës na woote. amul responsabilité parti lu ko ci boole. léegi moom dans tout ça Adji Sarr ci ci ci ci ndiiraan li yëpp moom loo ciy xalaat. xalaatuma ci dara lu mooy li mu yuuxu ne den ko violer nen ko at lu ci yoonam ci dëgg mu jël lu ci dul yoonam mu abale te continuer vie parce que nit la am na droit dund jigéen la. Hmm. Mhm. Ousmane bi mu demee euh, ci kanamu juge bi. ñu jàpp kon yow xaddi ñu jàpp non non mosuma xaddi parce que parce que. dégg naa keroog tamit dégg naa sëñ bi am na bi ne cheikh bi sax laay wax. am na bi nga ne dootuma wax ci Ousmane Sonko gars yi ñu ne da nga profité dal ci kaw Ousmane Sonko wax wax wax ko wax ko lu ne ba jaay sa tur ba pare soog cee ko loolu intelligence la ñoo ñu juumuñ. nangu ma loolu yow. bañ a nangu lu tax ma koy bañ. àdduna pexe la yow sa diggante yàlla jaamu la. booy wut dara ba am ko loo koy defee. comme kay jaar naa ci sonko mu sell mi ba am tur ba réew mi xam ma duma ko bàyyi mu doxal ma doxal. kon yow li nga doon def benn objectivité benn objectivité amu ci woon da nga doon def juste pour nit ñi xam la jaaree fa ut bunt. jeex na àdduna loolu la sénégalais yi xam la àdduna loolu la di pexe la. Mhm. ah yaa ngi nii yaa ngi doon jàng te yaa ngi téye micro di laaj nit ñi. Mhm. da koy bàyyi ëllëg bëgg nga nekk patron. Mhm. man lépp lu may def suma intérêt tax dama amoon intérêt wax ci moom amatuma intérêt wax ci moom ma noppi. Ousmane sonk daal lu dul moo baax moo fi gën nit du ko dégg ci man. waaw du ma ragal nag. ba pare tuubu ma jéggaluwuma lu paase damaa ba. Ah, pour mu leer nekkul ne li ma doon wax dama ko réccu de. nekkul damaa jéggalu nekkul damay tuub tuubu ma jéggalu ma mais damaa ba. waaw mhm. ah, lu dul lu baax mënu ma ko wax ci moom. mais bëgg naa mu leer mais réew bu ñu demee bañ ne yaakaar ne benn nit mun na benn oote benn nit mën na jaxase réew ma réew moomu lan lañ ci war a xalaat. déedéet nit a nit a nit ay am dayo boobu rek xam nga tey du benn nit rek leen war a mun a oo réew mi tas de. Hmm. xalifa général yi nekk ci réew mi bu leen police woowoon réew mi wàcc te ay nit leen. xalifa boo fi gis day dund bis dina ñëw ñu sang ba mu seet teg pour suli ñoom ñëpp nag ak man Sénégal ñoo ñoo ñoo mel melokaanu suñu bëggee nit dañuy duñu am sago ci moom mais non noo non du Ousmane Sonko rek am daraja boobu ci réew mi de déedéet. non yaay wax ci Ousmane Sonko de man exemple laa la. moo tax ma moo tax ma mm-hmm. tudd turam wan la ne. Mm-hmm. li tax suñ ko ooyee réew mi war a yëngu dafa am daraja ak dayoo bu ko yàlla may ci xol yi ma tegal la ci ne daraja boobu mu am ci xol yi du moom kenn moo ko am. am na ay kilifa ci réew mi boo leen waroon a oo tey doo ko xalaat sax yow tamit. Mhm. bu ñu defoon président mooy wàcc maanaam ministre de l'intérieur mooy woo président président yëkkat téléphone dawal otoom guddi toog na ko ah lii ak lii ñu seet nañ ko doxalee rey dossier bi dafa am ñoo xam ne kenn du leen laal. mais li ñuy wax ne audition tamit secret la war a doon. secret de l'audition bu nit jàkkaarloo. non pas yëpp dafa am yoo xam ne mënul nekk secret. mooy lépp lu ñor askan wi. mënta ñoo mënta nekk secret ndax fak askan bi dañu am droit ci xam. Mhm. waaw ak lu mu mën a doon nag bu ñoree askan wi rek secret mënatu ca am. Mhm. faaw ñu wax ko askan wi. mais mais li ñu dem ba fu mu toll nii réew mi peut-être gis nañ ne secret amatu fi parce que message yi nga xamante ne waa police ak gendarmerie moom lañ doon yónnante seen biir pour convoquer benn nit fii nii dañoo jékki-jékki gis ko ñëpp di ko partage ci ci statut yi benn nit jàkkaarloo ak juge ba la ñuy waxtaanee ba nu yeewoo gis journaux yëpp moom la titre titré te loolu ñu wax yëpp ne secret la war a doon kenn war ci teg bët sauf ñi mu concerné. no loolu loolu benn bu ci njëkk ndax dëgg la lu authentique la. authentique na parce que am na signature am na lépp. mën nañu def lu am lu signature yëpp te du authentique xam naa bu baax li may wax. Mhm. maanaam tey internet graphique toll na foo xam ne mën nañu def loolu yëpp mu mel ni lu authentique te fekk authentique wul mm-hmm. waaye su fekkee authentique na maanaam li ci njëkk man gëwuma ko mm-hmm. gis naa ko ni nga ko gisee mais gëmuma ko mm-hmm. waaye bu dellu lu la bul fàtte ne police bi nit la dafa war a akt ci loi mais nit ku mën a fen dafa mel ni naar ba rek mu fekk ñu ngi laal jabari jàmbur mu ne ñu ne ko bul wax jox ko deux millions naar bi toog ñeenti fan delloo si deux millions bi ne bi ma téyee xaalis bi ba tey su ma biir baa ngi daw fu damay wax mbaama dee am sa 2 millions ma dem fen mhm. donc policier bi gendarme bi nit la avant tout. Mhm. bu fekkee amul ngor amul jom mënta téye secret dafay mhm. weer secret c'est tout. mais policier bu topp éthique ak déontologie bu poli bu bu police. même buñ convoqué woon baayam bu ñibbee ci kër gi amul droit na ko papa suba da ngay wuyu ji. c'est ça nit ki la rek. nit ki mais mais am na am na am na beneen discours bi gars yi tenir ne ñi fa nekk dañoo dem ba d'accorduñu ci politique bi nga xamante ne président de la république moom lay doxal moo tax ñu doxalee noonu ñoom. su fekkee loolu ñu wax dëgg la du du dëgg parce que policier yoonam ci politique ak président lu mu d'accord lu mu d'accord policier dafa lu ko tënk toujours ci loolu la war a mhm. mais pas lu président wax ak lu mu nangam nangam noonu loolu. loolu rôle ki moom boppam la am sañ-sañu xalaat Mm-hmm. mais ku ñu entraîné jaarale la place ba solal la nga doon policier. Mm-hmm. amoo droit defee noonu waxee noonu bu dee dëgg la. mais bu dee dëgg la tamit policier yi xaar nañu ba nu dugal benn nit di ko déglu ñu ñëw jàpp ay garde corps am. yëguma loolu. Mm. kon xanaa bi bi ñuy woo Ousmane Sonko yow ci loo newoon yow. jaay suma njaay mi àndala buri bi nit ñi di mm. jaay di jënd ma di leen jaay ñuy koodal di defar seen sëy ci loolu de laa nekkoon parce que soxlaam moom mooy den ko woo muy man suma affaire mooy jaay suma njaay. Mm-hmm. léegi ana lan mooy jar <laughs> boobu xam naa livreur yombul won na am. non man dama am sumay livreur bopp. mais ñi ba pour nga jot leen yombul woon. maa leen di fay dañuy ñëw xëy si cinq heures ñu wàcc. Mhm. man basé wu ma ci livreur kenn. Mhm. tey rek wàccee naa beneen ñu ngi may montel GP bi pour ma wut livreur. Mhm. man noonu lay fonctionner léegi lan mooy suma affaire ci Ousmane sonk mu ñu woo man ma war a bàyyi suma njaay mi di déglu lu xew lu dul xew suma yoon nekku ci. ne naa la mbirum Sonko awma ci defar aw ma ci yàq lépp lum nekk na ko yàlla dimbali na ko yàlla yóbbu ci kanam man suma ma njaay mi jar. Mhm. xaw ma ci daara man daal jàppuñ ma maa ngi ci jàmm alhamdulilah. <laughs> te ñëpp képp ku ñu jàpp neen la bàyyi. Siteu Papa Sow dañuy bëri suba. Siteu moo koy daan. Mm. Mhm. cheikh bi wax nga de. ah amul wax suma xalaat. <laughs> non non lii gisaane la wala lan la. non suma xalaat laa wax rek. ak mm. li ma gëm. mbaa gaay la vaar. suñ ma vaaree vaar ku baax vaar koo xam ne xam nga ñii seen vaar yi du vaar quand mhm. man ni ñu def nii mën naa ko def yàlla sax vaar yàlla. nooy vaaree yàlla moom. ah moom moo ne wala xase inal insaan la fi xusri doomu aadama yi yëpp gëñ naa ci tàkku sànne pertinent. Mm. moo ko wax. Mm. mu waxaat ne. waaye jeexalewul wax ji foofu def na non loolu wax la man tam su ma wax ji jeexewul fii ci te mooy daan nga laaj ma ma ne la suma xalaat ak suma bëgg-bëgg fa laa ko teg. Mm-hmm. léegi comme moo tax ma ne la ni ñuy defee vaar boo ko mm-hmm. defoon yàlla vaar ko foofu laay waxee dañuy dagg waxi jàmbu rek boole. Mm-hmm. ne vaar. Mm-hmm. yàlla alxuraanam gi nga xam ne dëgg la boo ko doon dagga daggate di nga ko vaar 42 épisodes. te mooy buur bu mag bi nga xam ne du fen du wax lu dul dëgg. donc pour wan la ne ni ñuy defee vaar du dëgg. nit koo xam ne laaj nga ko surtout kii day bari mu ne la kii daan foo ko teg suma xalaat ak li ma bëgg nga vaar ko mais seetkat yeeg gisaanekat yi nga xamante ne dañuy profité ci euh, làmb ji bu jotee euh, pour je sais pas doxal seen business wala dara ñoom ban ban ban yëg-yëg nga am ci ñoom. dañuy liggéey mu ngi mel ni site internet yi rek. Mhm. bu ki waxee dara ñu daw wuti kële ne ñu ngi wuti réplique looy tontu ci lii demaat fale loolu mooy doxal seen mbir. mais ñoom sëriñ leen dañoo bëgg a convaincre nit ñi wane na am nañ xam-xam dañuy ñëw naan kii yee daan nii lay daane bu daane ñoo am ndam. Mhm. business la rek man ma problème ci ñooma ah. mhm. non seen affaire la niñ ko doxalee ça va. <laughs> kon bi euh, ñu ngi lay gërëm lan ban actualité tamit laa la laajul tey moom neexul moom tey moom man santir ko waaw parce que la fi doon actualité bëggoo ci wax. non neexut ak neex na moom yaa koy décider. man su ma cër neexul man ñi te ñi seetaan xam nañ ne tey neexul. non ma cër mooy nga laaj ma ma tontu laaj nga ma tontu na. parce que li doon actualité parce que dañ na ndaje bi ndaje actualité la. mais actualité weesuwul démb. Mhm. am na ku ma woo di wax ak man soxnaam si nangu téléphone bi na sa garab yi ngay jaay faaw nga wàññi doos bi kii mënut maa wàcc mënut daanu. Hmm. loolu actualité la. non loolu du actualité loolu xam nga c'est privé. ah kon tam Sonko mu ñu woo Adji Sarr c'est privé. non non Sonko xam nga ànd laa bëri moom privé la du public. ànd laa bëri mu ngi ci public bi di toj dëkk bi garab gu baax gi ñëpp di ko jënd mu ngi manqué gisal li des ci taabul bi nga ne du ak du privé la lu ko def privé. <laughs> yow tamit doy waar mu ngi ci boor bi dix mille la waxuma laak régu mooy buy guddal koy di ko réyal di ko jubbanti mu ngi toj àddina léegi yooyu actualité léegi ban actualité laa la ban ban message. peut-être xanaa tàggatoog yow rek. nga non lan nga bëgg wax loo xamante ne bëggoon nga ko daane. li ma bëgg a wax te euh, laajoo ma ko mooy. Mhm. ñi jënd an ñi jënd régu bi. ay waay est-ce que ñi jënd régu bi buñ <laughs> koy diw ñetti yoon neen ko diw ñaari yoon ma sama émission bi ngir yàlla. ñi ñi jënd régu bi neen ko neen ko neen ko diw ñaari yoon buñ ko diw ñett yoon wóorul. xam nga galo saw. galo xamoo ko. jaay naa ko ci régu bi. Mhm. journaliste bi mooy kii wàlli diwee univers info. Mhm. jaay naa ko régu mu ngi koy diw su ngeen ko mhm. gisee mu taf kanam gi rek. Mhm. xam leen ne effet bi la régu bi mooy def effet. Eh, non Cheikh man nag may tooñ quoi vraiment. non danga may tooñ non danga may tooñ quoi parce bi nit ñi dañ koy xaar. nit ñi di xaar samedi bi di xaar yëf yi di xaar lépp tey. non mais actualité weesuwul Gallo Sow. kii kii toog DTV guddi gi. mooy booy boobu. booy bi ne jaay naa ko jaay naa ko ci régu mu ngi bugg a boppam. Hmm, loolu actualité la. non non si Cheikh bi daal xam nga laa bëgg léegi Mhm. léegi léegi euh, léegi samedi bi di ñëw. Mhm. parce que sax samedi dama bëgg peut-être waa léegi naka la ñu mën a def ñun waa réew mi ba nga commencé di argumenté ci Ousmane Sonko loolu moom naka la ñu lan lan moo mën a xewaat ba nga commencé waat waxaat ci Ousmane Sonko. ci àddina. Mhm. xanaa ma dee dekkiwaat waaye feeg maa ngi dund moom mbiram sonk yaa rafet yaa baax na la yàlla dimbale laa ci man amu ci benn kaddu. mais nag ànduma ak moom politique te àdduna du neex bañ ànd ci politique. ndax gëwuma politique am mais damay màndu ci moom. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu moom damay bëgg di ci préciser mu leer. Mm-hmm. xam nga gars yi dafa am ñu dof ñoo xam ne den naan ñaw dina ñëw di yàlla tere. waaw ah, bés bu ma ñëwee rek suma baay juruma. parce que mënuma uyu ma gëmul. mais nag sañ naa gaw ma la nit ñi bëgg ne ma màndu ci yow. bés boo la ne. bés bu ma wuyu jee sonk. wala ma toogaat wax ci moom lu ñaaw. kon suma baay juruma ñaar yëpp du am. bés bu ma demee bokki Pastef gëm politique gu ah, Ousmane Sonko non ma ne lan laa wax man lan moo mën a existé loo xamante ne dina xew ba nga sa wax ji nga delluwaat ginnaaw ne léegi damay waxaat ci Ousmane ko damay analyser ci ay mbiram damay critiquer ci ay mbiram damay argumenter ci ay mbiram. mënul am loolu mënul am parce que nit ku nekk kàddoom la am. waaw. Mhm. Ah. su mbir xewee nag mën naa caa wax waaye am man na ma daan def topp kenn rek si ñili ko mel ni moo fi ne. Mm-hmm. bu ne weex na nga ne ñuul na bu ne xonq nga ne ko déedéet. saa mm-hmm. moom gisuma ci suma intérêt ma. Ah, ñu ngi jaajëfal ñépp cheikh bi gis na nañu peut-être waxtaan bi nga am ak euh, taalibe soxna Aida bi mais peut-être lii may wane ne réew mi réewum waxtaan la bu nu waxtaanee mën mën nañoo déggoo. kon ñu ngi leen di wax ne chaque samedi incha allah sur Public SN TV Cheikh Ahmed Tidiane Cissé moom la ñuy jàkkaar lool waxtaan ci actualité tey nag li ma ko waxoon ne ko man sama xol féexul parce que li ma bëggoon mu décortiquer décorté wu décortiquer wu ko te nit ñi dañoo yaakamti décortiquer boobu. kon euh, ñu ngi leen di jaajëfal di gërëm ñaar ñi ma fi àndaloon Hamidou ak euh, Massaly di leen jox dig daje ci yeneen i daje te di leen wax ne n'arrêtez pas de suivre Public SN jëre ngeen jëf. Thank you.